sama dund ni damay jóge ci li nga xam ni mooy bii biir dëkk Sénégal maanaam damay noppee bokk ci ñiy wax walla ci ñiy wax ci biir Sénégal ngir mën a am jotu toppatoo sama doom jooju moo tax li dalee ci bis bii may wax ak lépp lu jëm ci wàllu taskatu xibaar lépp jëm lu jëm ci wàllu jàngat ci politique lépp lu jëm ci feeñ ci télé wala ci rajo wala ci journal loolu moom sama ginnaaw la nekk ci bis yi ni nga xam ne moom laa yoroon muy sama bloc dinañ ko dindi genn wàllu Dakaractu bi ma moomoon it jaay bi ma ko jaay dinaa ko yeggale ci fan yi su ko defee ma mën a am jot pour toppatoo samay doom toppatoo samay soxna toppatoo samay yaay ji nga xam ni macha allah mag la te yaram neexatul yaramam neexatul loolu li def ci sama temps nag dama fas yéene jox ko benn cabinet boo xam ne mën naa taxawal am na weer ci ginnaaw. taxawal ko ubbi bureau fii nga xam ne mooy cité kër góor gi cabinet mi ngi tudd cabinet mi ngi tudd Numéris 30 dama fay def nag mooy sukkandiku ci ñi ma xam ci àdduna bi ci wàllu média ci wàllu politique ci wàllu koom-koom ngir mën a liggéeye ay nit ñi ko soxla ci lu jëm ci communication ci lu jëm ci lobbying lobbying Sénégal ak lobbying bitim réew ci lu jëm ci ay sondage ci lu jëm ci recherche ak enquête ci lu jëm ci ay gëstu yoo xam ne dañuy waaye étude de quantité et de qualité ci lu jëm ci aussi ku bëgg ñu bindal la livre wala document bu mënti doon boo ñooñu paree ci loolu nag daf may sama dund sama dund tey bu ma ko dafa mel ni mythologie grecque ndax sama dund dama

maa ngi ñaan njéggal ci ñëpp ñi nga xam ne ni ci ñaar fukki at yi weesu wax wala li ma bind tooñ naa leen ci wala ma yàqal leen maa ngi jéggalu ñëpp nga xam ni nii ma yàlla def xëy neexu leen ba ba mosaan gis tere wala gis ni seen dund mu maa ngi jégalu ñi nga xam ne aussi ndeysaan dañ maa bëgg lool te bu ma daal wàllu mu daal sama njaboot ñoom sax ñoo ciy gën a am naqar que man maa ngi sant yàlla bu baax nag nga xamee ni ñaar fukki at yi nga xam ne def naa ko ci wàllum tas xatu xibaar jéem naa sama kéemtulaay kàttan ba nga xam ni lay rek laa doon jéem a def mooy wax wala bind loo xam dafay jege dëkk maa ngi sant yàlla nag bi nga xamee ni ci ñaar fukki at yooyu aussi dugguma ci vie privé kenn defuma dudul wax ji nga xam ne moom la ñëpp bokk ci sama biir xol nag laa tibbee di ñaanal Sénégal yépp képp kuy Sénégal yàlla na yàlla defal jàmm defal ko say jabar defal ko say doom di sàkku nag ci Sénégal bu nekk mu ñaanal ci man sama bopp samay bu waxee dëgg nag dinaa wax ni texte yi mu mos a bind yépp bii ma tiim moo ci gën a metti waaw média internationaux maanaam këru taskati xibaar yi nga xam ne yépp dañ maanaam woo pour ma leen di jàngatal li xew ci Afrique loolu dina ma manqué magazine yi am Sénégal nga xam ne dañ ma fa daan invité bu bari muy jàkkaarloo muy la invité de MNF muy grand jury yépp dina bàyyi vide ci sama dund li nga xam ne moom la daan bind man muy édito yi ma daan bind ci sans langue de bois yépp it xam naa ne dina dina xasan samay loxo waaye nag àdduna noonu loo xam ne dafay dem rek bis mu muy ba pare nit ku ne eh, sa jaar-jaar ci àdduna lu ci ëpp doon li nga bëgg mais day doon nga xam ne moom la yàlla nangu ci waaye nag jafe-jafe bu ne aussi am na lu ci mën a am na lu ci mën a jëlee dama am benn euh, théâtre kat bu mag tudd Coluche